qui est notre curseur euh, par rapport à que euh, nga xam ne itam fal alors allez su ma photo qui n'a xam que modi yassine Yacine Fall exactement yassine nak mom euh, kenn d'autre que présenté ci fa na xam ne itam moo di séddaanu ko surtout. Euh, quoi qu'on puisse sur li nga xam nekk moo coalition jomay euh, 2024 ki nga xam nekk moo Fall nag moom itam euh, mu daal exactement la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères donc ki nga xam nekk moo di Yacine nag fal nañ ko mu daal di li de ministère mu nek ministère bo xamni ni itam franchement ñu si ëpp doon si daal di xaar ni ki nga xam nekk moo di peut-être mais malheureusement pour lui tayrou dafa ma ni kon ko xawal li nga xam nekk zappé si wàllu wunu mel

qui ki n'a que Ousmane Sonko mu autrement ni ki n'a xam que Yassine Fall mu équipe jigéen aussi mu une chose très très importante alors suñu mënee am photo yassine Fall euh, balade ñu avancer un peu Ali euh, ñu daal di ñu daal téléspectateurs exactement suñu ministre n'a nga xam itam ñoom ñoo fa leen daal que gouvernement donc Yassine nag mi ngi Mon mon équipe exactement li jamais que la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères mu équipe ministre bu am solo ministre Bo xam itam représente te amna donc mon regard dit novembre ki n'a xamné que modi euh, yassine Fall alors euh, ginaaw euh, yassine aussi aussi ci ki nga xamné que général général biram Diop général biram Diop nak mom moy li nga ministre des forces armées manu aussi forces armées lu am solo la ci nga Sénégal voici si li Je na ko ki euh, justement mm, euh, quoi qu'on sur général Birame Diop Birame m'a dit exactement ah Birame m'a forces armées mais Birame Souley que mine bi énergie bi donc général Birame Diop je am euh, mom mi euh, jiite li nga xam l'armée donc armée bi nak amaat na benn li nga xam nekk mu démembrement euh, ginaaw président Macky Sall di rattaché woon la gendarmerie vers li nga xam nekk mu di l'armée ki nga xam nekk mu Bassirou Diomaye Diakhar Faye jëloon na décision daal di soi li nga xam nekk mu di wàll mel exactement donc mi ngi nonu ki nga xam nekk euh, général euh, Biram euh, Diop est aussi moy ki Ousmane Diagne de la justice aussi bu am solo parce que tout le temps sénégalais ak li justice ki nga Ousmane Diagne Ousmane Sonko dal di exactement ministre de la justice garde des Sceaux général Jean Baptiste Tine alors nous aussi parce que c'est important le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Mon ming son déjà donc euh, te aussi lu am solo la c'est que pour mu daal gérer li que maudit intérieur ak li nga que euh, justement de sécurité publique Mon ki n'a xam que moo général euh, Jean Baptiste Tine Mon le Ousmane Sonko dadi di li nga xam que maudit dit exactement mu nek li nga que maudit ministre de l'intérieur et la sécurité publique donc ki nga xam que modi général Jean Baptiste Tine Mon mo daal outou qui ki nga que modi Um.

si euh, wàll bi et que c'est déjà en général donc mën japp ni euh, c'est un bon profil mom ki n'a xam nekk justement euh, justement général euh, Jean Baptiste Tine si fal gi nga xamni tam fal nek mu dal di ministre de l'intérieur et la sécurité publique ginnaaw Jean Baptiste Tine dañuy daal di jàll si ki nga xam nekk moo di Birame Souleye Diop Birame Souleye Diop nag moom moo li nga xam nekk moo ministre de l'énergie du pétrole et des mines euh, biram Souleye Diop nak donc ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko mu nek fa nga xam ne itam mooy zannu ko Pastef euh, dorénavant moom mo jité pétrole bi ak walu ko mine bi mom ki nga xam nekk modi biram euh, Birame Souleye Diop donc xam nak nag enjeu yi ci si gaz beeg pétrole beeg et tant d'autres et tant d'autres c'est important ñu am benn li nga xam nekk modi di qualifié que Birame Souleye Diop fal nañ

Euh, Cheikh Diba euh, moom mo nekk li nga ministre des finances et du budget c'est important aussi mu daal qui ki nga xam ne que moo Moustapha Ba si qui ki nga xam ne que le président Macky Sall waaye itam jàppale tam ki nga xam que moo di Ndiaye moom moo nekk ministre des euh, infrastructures des transports terrestres et aériens Daouda Ngom moom moo ministre de l'environnement et de la transition et aérien Daouda Ngom aussi moo nekk ministre justement de l'environnement et de la transition écologique Amadou Moustapha Sarré mu nekk li nga xamné ministre de la formation professionnelle euh, waaye itam Cheikh aussi fan un communiste ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane ko ku xamné ne ni mo Canada les élections candidat aux élections présidentielle euh mais mu sursoir sa candidature au profit justement euh, de euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay mom itam tay def nañ ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Alioune Sall ministre de la communication et des télécommunications et l'âge Abdourahmane Diouf nak mu daal di faree fa nga xamni ne moy zanako parti awale mom moy le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Bana maanaam moo jiite euh, bu kaw bi waaye itam yitte wàllu gëstu geek wàllu ko ñoñal euh, wàllu réew mi man ni kon ki nga xam nekk mu di Abdourahmane Diouf moo ko daal di jiite keneen itam di ki nga xamné ne moo Serigne Gueye Diop moom mooy ministre de l'industrie et du commerce Fatou Diouf mooy le ministre des pêches des infrastructures maritimes et portuaires way itam ki nga xamné ne modi même Maimouna djé aussi euh, la mairesse de Patte d'Oie tay d'Oie tey mu neen jàpp ni donc senou maire nek na li nga xam ne moo di ministre dorénavant ki nga xamné ne modi di euh, Maimouna Dieye mo moo daal di jiite euh, ministre euh, moo nekk ministre de la famille et des solidarités Abdourahmane Diouf donc mi ngi noonu. Euh, ministre justement de l'enseignement supérieur euh, qui est un ki qui euh, Moussa Fofana bal Moussa Fofana n'a que ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire man n'a ki Moussa Ball Fofana c'est boobu de ministère Moustapha Girassi, mon ministre de l'éducation nationale Ibrahim Si, mon ministre de la santé et de l'action sociale Olivier Boukal, mon ministre de la fonction publique et de la réforme du service public. Euh, Khadi Djengay, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Euh, Maboum le ministre euh, de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de euh, l'Élevage. Waitam Kinahamek, Alun John, ministre de la Microfinance, euh, de l'économie sociale et solidaire. Euh, Mountakha Diaw moom moo nekk euh, ministre du tourisme et de l'artisanat donc nag euh, wax wax ji benn la analyse benn ci ëpp nag rafetlu neen bu baax baax baax cette nouvelle composition bi nga xam Tam, itam yëf yi jël na ko ni daal di war a li na xam nekk moo di yor nguur gi fii ak li na xam nekk moo at exactement dañuy essayer daal di jëlaat keneen si bu mu jokko bi laata ñu leen daal leen di dëttal seen émission li na xam nekk le soir de Ramadan bi nga xam Tam. itam dina daal di ñëwaat si gën yaato euh, par rapport ak ministre yi nga xam ni itam euh, tànn neen leen donc mi ngi noonu nag ki nga xam nekk moo Ousmane Sonko encore une fois euh, jox na ultimatum benn mois à ces ministre pour ñu daal di war a mën a gën li nga xam nekk moo justement euh, démissionné yenn poste yoo xam ne itam koy occupé au delà euh, seen poste ministre alors donc euh, El Malick Ndiaye El Malick mon mu porte parole bu Pastef mon itam nous a koy ràññee lool si nga xam que Modi gouvernement bi ak li nga xam que Modi parti bi donc nous non non Malik la wala mais El Malik la jàppee itam El Malick jamono ji moo daal di couvrir yeneen domaines yu cruciaux bokk na li nga xam que Modi justement fexe ba li nga xam que Modi di infrastructure Bercy ak leneen lu ñu mel donc loolu lépp nag teg nañ ko si loxo ki nga xam ne moo di justement Euh, El Malick Ndiaye moo daal di jiite li tabax réew mi dal euh si loxo ki nga xam nekk moo El Malick way tam Aliou Sall Aliou Sall mom mu nek li nga xam nekk moo di député euh, diaspora si li nga xam nekk moo parti passif mom Aliou Sall nak mom moy ministre euh, de la communication donc mi non mo mbokk spectateurs ak cinq secrétaires yi nga xam tam am nañ ko bokk na si Ibrahima Thiam Mama Talla Ndaw Alpha Ba Bakary sar donc ñom ñoo daal di li nga xam nekk moo nek ci walu wàllu wurnal alors mbokk secrétaire yi cam na ngërëm ñaan na leen bu baax a baax a baax a baax a baax donc loolu la c'est une édition spéciale euh, par rapport à ce nga xam dit la publication du nouveau gouvernement acte nañ ko nag lu daal di toll si n'a nga xam nekk moo di ñaar euh, si ay ministre ñoom ñoo fas yéene daal di piloté nga xam gouvernement euh, bu yees édition spéciale la par rapport à li nga xam nekk la publication l'application justement du gouvernement de leen ak ñun léegi leen daal leen dëttal seen émission li nga xam nekk le soir de Ramadan ñu fas yéene daal di si mu gën a par rapport à li nga xam nekk la publication du nouveau gouvernement bi nga

Au-dessus de nos programmes et par des excellents moments sur Sénégal 5 TV, c'était euh, Fallou Sela depuis euh, l'Inarhamnek Modi Palais en compagnie justement de Sérignan pour vous, euh, pour vous faire parvenir exactement l'Inarhamnet fils du Sénégal, la publication de la liste du nouveau gouvernement Binarhamnet Sonko. Foussine Kodadi Piloté, bonsoir. Djebel, ay proposition yo